c'est bon ngeen jëf mbokk internetu Thiès info yi nga xam ni foo leen nekk ci àdduna yi yéen a ngi ñuy topp di ñu suivre ci suñuy plateforme moo xam Thiès info TV moo xam itam Thiès info point com tey nag dañu ñëw fii ci Ndufuk Ndufuk nag nekk euh, diwaan boo xam ne mi ngi bokk ci commune Fandène waaye itam mu dend ak euh, Daaru Salaam ak fi nga xam ne moo di Silmon tey nag dañu ñëw ci internat bi nga xam ni daanaka déggoon nañ fi jëyeen ni ki dimanche. muy ñaari taalibee yoo xam ni daanaka dan ni euh, kenn ki dafa faat morom mi euh, daal di koy takk suul ko ci ay kàmb loolu la am ci ay xibaar ci benn kàmb goo xam ni gasoon na ko xale bi nu faat nag mu ngi tudd Moustapha Samb bàyyi ko dëkk bu ñuy wax Fass Bërigo bokk ci région de Kaolack waaye xale bi faat moom mi ngi bàyyi ko woon diwaani Ndakaaru mi ngi tudd Talla Diaw euh, ñoom nag daanaka problème bi dem na ba mu ngi ci loxoy yoon. tey Thiès Info dafa ñëw fii ci kër gi ngir mën a xam mbir mi bi mu amee ndax fekk na fi sëriñ bii di Cheikh Ahmed Tidiane Seck wala déet bu ko fi fekkut yan xibaar la am ci mbir mi ni mu demee comportement d'agitation yi amoon ci xale yi ndax nekkoon nañu xale yu daan agité wala xale yu amoon jàmm wala xale yu sekkoon wala yu daan demalanteeg dikkalante donte âge yi tolloowut internat bi nan la bindoo nu xale yi di dunde ci biir Euh, mbir mi fu mu toll ak justice ñin ci jotoon a arrêté doon leen enquête fu nu mujjee ak justice lan lañ leen wax yooyu yëpp comme ni ko Thiès Info di defee rek boo leen ñu toppee mag Adama Ndiaye di ngeen ci xam léegi bu fekkee euh, dugg nañ ci biir kër gi dalal ki nga xam ni mooy borom internat bi nga xam ne internat la boo xam ni fukki ndongo ak juróom-ñett ñoo fi bàyyi ko di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck kon àdda ñu dugg ci biir. ngeen jëf suñu mbokk internet yi nii topp ci Thiès Info TV topp ñu également ci suñu site bi di thiesinfo.com tey ñu ngi fii ci Ndufuk bokk ci commune wu Fandène euh, feggoo daanaka ci xàll wi nga xam ni moo nekk ci commune Thiès Est daanaka diggante Ndufuk ak Daaru Salaam mën na ni ay ay à peu près ba deux cent la xam ngeen ni nag ni ki dimaas si nu génn am na fee bu doy waar buñ fi dégg muy ndongo daara bu jël morom mi ci li ñu wax jatan ko daal di koy faat suul ko waaye am na ñu ni ba mu ko suulee fekkut mu faatu ndax bi nu koy li daa mel ni lu yëngal tànk yi lu ni mel nag tax na ba Thiès Info jug ndax xibaar yu bari yiñ ci dégg ngir ñëw leertu ñi ngi toog nag borom daara ji di Serigne euh, Cheikh Ahmed Tidiane sekk moom nag mooy euh, jëwriñu daara ji euh, dinañu ñëw ci moom bu baax a baax ci ponk bi waaye laataa ñuy sori rek ñu ngi ci biir internat bi sëñ bi Seck nuyu nañ la siyaar la. waaw delloo nañu lu baax a baax dellu leen ziar di nuyu waa Thiès Info ñëpp macha allah te di leen jaajëfal di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa baraka. sëriñ bi fee bi ñu dégg dikk nañ ci sànq ci gàttal nan la demee euh, ndax mën nañ cee am luñ ci for. waaw feebi nag moom daanaka la ma waxoon ci ñi fi ñëwoon ci association daara yi démb dañ koy laaj la ma ca tontoon rek mooy li ma ciy fàttaliwaat nii tey mooy buñ ma laajee lu jëm ci fee bi moom wax dëgg yàlla ci way déggandoo yi laa bokk loolu la yàlla dogal ndax yàlla moo xam lim ci namu ci loolu. waaye lu mënta doon comme daa jiitu mbir ma ba muy am dogal baa jiitu waaye daal feebi dogal bi ci yàlla amoon ci bis bi muy am bi mu jubsee rek borom bi subhaanahu wa taala daal def na ci dogalam man fekkuma fi daa taxoon ma génn doonoon tabaarakallaa wittee doomu adama ci njaale nga xam ne di rafetalu jaale ji say mbokkum jullit tabaarakallaahu man nañu ko tuddee sàcc sànni tàccu ci rafetal si diggante nit ki ndax mooy dernier dundam loolu moo ñu yëkkati woon sabab lu woon li taxoon nag sunu fàgguteef euh, ba ci euh, nu mu tuddati euh, rob bi sax kii bi taxawee bi jullee gis jullee néew ba sax xat-xat yeeg nekki nekkinu daara ji toppatoo yooyu moo ñu gàllankooroon ba mënuñu woon a dem ca ca ca kii ba rob ba waaw yàlla doon na daal li moo taxoon fee bi ñu ma ci laajee rek daanaka li may gën a sawar mooy ñu laaj ko ko ko fekke woon daal macha allah waaye wax dëgg yàlla maag ñu dégg ñëpp ñootu bokk yem ci dégg naa dégg naa gi waaw ci euh, mel ni kon euh, daanaka da ci ay téléphone wala xëy na jumtuwaay yoo xam ni am na distance mm-hmm. euh, yëg googu nan la dikkee ci yow. waaw yëg de ni mu ci man rek comme ni muy dikkee ci ñëpp rek kum doonoon yow mbir am ñu wala téléphone. wax la wax ji nag am na ñoo xamante ni léeg-léeg li tey ñu tudd na demee dëgg mooy léeg dañ ciy jublu bañ laa tiital comme ça kenn jóge fi àdduna rek nga dégg ñaan la ah, moom day sonn na de comme yooyu noonu comme niñ ko xamee ci façon communiqué wax nañ ma daal ni ma rek xale bi rëcc na loolu laa njëkk dégg ci information xale bi tudd taala mooy ki ji ki ki ki waa ki def jéey moom lañ wax ni ma daal rëcc kii na taala na loolu laa am ci eh, mbir ci ci déggin dégg bu njëkk après ah ma dégg ko daal di daal di coupé téléphone bi jéem a xool nu ma ñëwee pour lijjant loolu ndax loolu lépp problème la parce que dee na ak rëcc naag yëpp rek mooy xale daal xale bi daal amin wu la neexul daal dégg nga ko ci rek ba ma déggee nag dem na rëcc na gi rek dama jóg di waaju waaju na ñibbi ñu woowaan ma téléphone nag yegg ma nag loo gën a garaaw rëcc na te mooy wax ma jéeri ji loolu nag waxuma ma waaj dem ñibbi waaye moo moo taxit sax ma fàtte fa sama kii samay jumtuwaay samay bagage yi nga xam ne sax te woon naa ko ba bi ma xamaate bi ma ko gisaatee damaa jékki-jékki kooku tey ci loxoom ma xam ne ñoom dañ ma ko indil sama ginnaaw ñii daal laa ci amee daal euh, bi nga euh, nga taala wala rëcc gi mën nañ ko confirmer taala sur place wala teg nañ ko loxo. de euh, bi may ñëw xam nga diir bi moo xaw yàgg ndax maa ngi jóge boori can boori Canaba Kajoor laa demoon maanaam maa ngi jëlee oto boori boori yooyu waaye Kébémer daal boori boo ci tund woowu noonu xam nga damaa demoon Canaba Kajoor tabaarakallaa bi bi ñu waxee mbir mi nag ah dugg oto daal di ñibbisi diir bi ma am nag ci yoon wi tax na nag bi ma ñëwee fekkuma fi ñaari jëm yëpp tiir baa yàgg daal loolu laa bëgg a wax fekkuma fi ki rey fekkuma fi ki rey ki ñu rey yóbbu nañ ko hôpital ci war a tabaarakallaahu yóbbu nañ ko police. Talla bi muy def jëye jooju xanaa amul woon uh, ku nekk ci daara ji ndax am na ci yenn sources yu nu dégg ñu ni moom moo encadreur la ci daara ji maanaam kon day mel ni uh, yow da nga koo joxoon dogal ngir mu seer daara ji ginnaaw bi nga demee ndax loolu mën nga ko leeral ak mbir mi am kan moo fi nekkoon. waaw moom yorul woon géréwul woon daara ji de déedéet waaye nag. Euh, ak ñorom akub xelam dafa mel ni daal ëpp na jëmmam daal ëpp na jëmmam waaye am naa contrôlé nag am naa contrôlé nag moom moom moom ñëpp possible am nañ ci kii nu ma ko wax libre nañ ci daal am nañ ci ndigal daal ku ci nekk daal di eh, bàyyi xel moroomam ci def ku ci def lu nak su dul noonu ci daal ji nga nga ni nga signalé ko oustaz moom ci position bi ni valable ci ñëpp noonu la valable ci moom. waaye du moom moo doon gont daara ji déedéet tabaarakallah. Fatuk euh, Samb ñu wax jatangi tànk gas kàmb suul euh, mu mel ni kon xale bi li nga wax xel mu ñor mais et tout ça euh, bi mu ngi def jëf jooju def ko ba pare ginnaaw enquête yeeg tout ndax amul dara lu ci feeñ lu waral lan moo waral mu def lu ni mel. maanaam. maanaam bi muy def jëf jooju parce que dégg nañ ci suuf si ni danoo takk tànki xale bi. Mm-hmm. moom ci boppam gàddu pel dem suul ko waaye tànki dafa mujj féete kaw xëy na ci source yu nu jotaam rek la ñuy sukkandiku euh, yow ñàkku ni xëy na bi nga ñëwee léegi euh, am na ay enquêtes yu rot pour ñu mën a xam yow sa position ni nga demee woon tout ça ndax foro dara ci enquête yooyu luy révéler xale bi lan moo taxoon mu def jëf ju ni waaw loolu nag mooy mooy question bi may laaj ma nit ba tey amaguma ci réponse parce que jëf ju mel nii moom ku dégg te nga di jaboot rawatina nag li ñu tuddee responsabilité jàpp naa ni sax mu daloon koo xamante ni yow sa yow la concerné dëgg la nag fitna mu baaxul ci kenn waaye li nga xamante ni daal yow yaa yor wàllu kilifteef ko ci sa mu mu jógee saw li ma bëgg wax rek sa doom mu daloon sa doom daal ci wax ju gàtt mën naa gën a sax woyof mu dal doomu jàmbur ndax li indi loolu moom mooy li nga mën a muñ sa doom wóor la ndax ki la dénk. te nekkoo ci xolam mën naa muñ loolu loolu nag bokk na ci li tax euh, tabaarakallaa looloo tax nag jëf ji euh, moom daal question bi ma ci topp bi ma ci topp daal mooy ñun ñëpp di xalaat di nag maanaam li ñuy xalaat daal questionnement boobu noonu man moom laa am. waaye waaw moom laa am ndax gisuma mosuma gis fee yu jege ku nar loolu wala ku capable loolu ci moom waaw ci xale bi kare mosuma gis fee yoo xam ni suma koo gis nag bokkut ak ma ni nekkul ci moom. ndax nit la xam rek man koo wax mooy lim xam en tant que nit waaye li nekk ci moom nag moom ah xëy na mën naa nëbbu xëy na mën naa nekk dogal xëy na daal doo xam waaye daal li ma fii xam-xamu doomu aadama yam daal mosuma gis moom fee yoo xamante ni dana nekk benn signal boo xam ne dinaa xam ne kii lii la mbaa capable na lu mel noonu selon fee bii am ni mbir mi. kon li muy nekk ci daara ji yëpp comportement bu mel noonu mosoo koo gis ci moom maanaam comportement agressif. yoo xoo dooree ak yooyu. déedéet loolu moom loolu nag mooy mooy ma ci gën a yéem loolu nag euh, li tax ma li tax man mësuguma koo gis waxuma li tax nekkul ci moom de ndax nit la ne ci moom rek yàlla rek ko xam ginnaaw yàlla xëy na moom xam na boppam ndax balil insaanu ala nafsi basir waaye nag li tax gisuma ko ci moom man naa nekk xëy na ndax dañu ni man ja kenn jaaxaluma amul mais da xëy na waaye nag xëy na ki la jaaxal kay moom nga gisagul man naa am. façon méthode bi ma leen di yore ak ni ma leen yilife ci sévère ci bàyyi xel ci fullaak ci faydaak ci taxawaay mën naa am du ma yeb yeb gu tax may gis fee yooyu xam nga li ma la wax waaw ñaan kii faaliwul kenn ma ne déedéet ah xëy na da ngaa xamul kum faale waaye ku faaliwul kenn amul mën naa am nag looloo tax man ma am nu ma doxalee benn méthode ginnaaw bu ndimbalal yàlla subhanahu wa taala weesoo ba gisuma ci ba wonuma moom mooy li xam nga da ngay nekk ci kër dégg ñaan kii. faaliwul kenn bas yaa nga am keneen koo dégg mu ne kan kii daa réew fekk yow mën naa am da nga naan am na koo xam ne mën naa sax réew gi ñuy wax ci moom gisu ko ndax mën naa am da koo wóolu loolu dañ koo séqul wala da koo yëbul xam nga day am kaa yooyu nag moo tax man moom mosuma gis si ma au contraire sax man li ma masoon a gis seetlu sax ci moom mooy dama xawoon a njort ni bu ma dee tànn ci xale yi xale yi ci gën a kii sax moom la waaye jëf ji daal bi bi mu amee léeg-léeg ma xaw ni ma bett na ma waaye léeg-léeg sax mu weddiloo ma sax loolu ñuy tuddee defe naa trompé waaw te jëf ji moom bu ma sukkandikoo nag ci jëf ji daal waxuma jëmmam moom déedéet fooguma ko jëf ji moom moom damaa trompé ba ah ma ba ba maanaam ma ni man de bëri na xëy na damaa yaakaar li ma li ma fa doon foog moom xaw ma dama ko njort wala boog daal xaw ma daal mbirum laneen la lu ma xamul waaye daal waaye daal wóoruma daal man daal affaire daal bett na ma daal boo bëggee dégg-dégg bett na ma jaaxal na ma te man la gën a bett ñëpp ndax fee yi dama ko gisul woon ci moom mu naroon ko mbaa waajoon ko mbaa a xam ne capable na ko dara dëgg nga xam ne moo di entente yi ndax dégg nañ bi mbir yi amee commissariat centrale jot na li nga xam ni moo di information yi pour mën a déclencher enquête euh, ñin njëkk a fekk ci kër gi ak yow mi nga xam ni yow yaay borom daara ji euh, fan ngeen toll ak justice ci dossier boobu. Euh, ci ci wàllu. ci wàllu déglu wàllu enquête bi waaw. day comme mbirum kii la mbirum yoon la loolu xëy na duma ci mën a sori sori waaye liñ ci mën a wax rek moo ci man liñ ci mën a wax daal eh, te ma jàpp ni loola mënees na ko dégg mooy li ma ci dund rek defe naa moom nga laaj waaw benn lañ ci woo nañ woo nañ ñu dem nañ ñu déglu nañu déglu nañ xale yi nga xam ne ñoo ñooy ndey mbi léegi daal ndey mbi aji def ji daal xam nga doo koy tuddee nag ci tubaab mooy la. waa kay moom waaw moom moom lañ yóbbu déglu nañ ko déglu nañ tam. Euh, fekk way fekke yi. xaw ma nu ngeen tudde tuddee. les témoins waaw. way fekke yi laaj nañ leen. ñi war nañoo toll ci ñeent. ñeent ak waaw ñeent ak kifaar waaw. laaj laaj yóbbu nañ ñeent waaw. ak kifaar waaw muy juróom ñoom laaj nañ ñeent ñoo xam ne. aussi kër gi soxna si moom itam bokk na ci ñun ñeent yooyu ma tudd. waaw ci ñeent yooyu bokk na ñoom ñeent ñoo ñoo fekk ñoo doonoon témoin yi waaw soxna si ak yeneen ñetti ñetti kii ñetti élève ñetti dong. xale bi nu faat toll ci juróom-ñetti at. kii faat fukki at ak ñeent ndax eh, ñoom ñaar mas nañoo jaxasoo ci biir daara ji amoon ay relation yooyu. mais eh, amuñu woon relation de ndax dañoo bokkul génération amuñu woon relation ndax dañoo bokkul génération benn. ay bokkuñu tam hmm, bokkuñu génération sax def naa ëmb na li mu bëgg a waxaat li ma ci bëgg a tegaat mooy daal buñ bokkoon génération xëy na dana jur siqil gu tax ñi ñiy jege mbaa ñuy mais bokkuñ sax génération bokkuñ jëm waaye ñe kee foo fekk rek kenn ku ci ne rek ña nga gën a tollool daanaka ñoom ngay parce que ay génération génération ñoom ngay amal moom nag comme ku toll kuñ naan set kii huit ans ak neuf moom borom huit ans kooku ma ngay tollante ma ngay ànd ak daanaka boroom sept ans yaag borom ki ko ki ko magee benn at mbaa ki ki magee benn at ñoom ñi nga xam génnuñ ñetti at ñoom ñooy gën a ànd moo tax bokkuñu woon génération di wax ak yooyu loolu nag saa bokk na ci man it fee yi ma xalaat lan moo tax mu a def nii loolu tamit lu ma ca loolu xalaat ba naan nii rek mu gën laa jaaxal. mu gën laa maa jaaxal. këréy maanaam pour seen si ñoom ñaar wala waa waaw ñoom ñaar sax na ko xam nga daara ji li ci gën a yéeme xale yi ku ci koo ci woon nii rek laaj ko bala ngaa dal alif li ngay njëkk jàng lan la fukki tomb de dinaa la ko jàngal waaye ñett yi moo moo gën a moo moo moo tolloog lii may wax moom mooy dañu fiy tere te ñett yooyu boo dee xool mooy lii indi li mën a indi xeex xam nga wolof dañuy fagaroo gën faju xoddeeku bala ngaa lakkale ak ñiy bañ tamit liñ naan médecin après la mort moo tax bul fayug lakk li ci gën moom mooy fexe ba lakk du am léegi nag fexe ba xeex du am moom mooy moo indi ñetti tomb yooyu ma di jàngal tooñ ci règlement intérieur yi ñuy tere ci bërëb bi ci la bokk xam nga tooñ moom fu mu amul xeex du fa yomb waaye tamit du tooñ dong ak fayu waaw fayu tamit fu mu amul donte tooñ am na sax léeg-léeg xeex man naa bañ a am ndax ki ñu tooñ rek mu dem boole ji rek soo feex xeexee mën naa bañ am moo tax ñu di leen jàngal ci ñetti tomb yi mujj yi ginnaaw juróom-ñaari tomb yi juróom eh, waaw juróom-ñetteel bi moom mooy tooñ dañ koy tere ci bërëb bii fajal sa bopp te mooy fayu rek fayul sa bopp te am kilifa loolu moom valable na sax bulul daal ji sax sikk rek képp ku yar ittuwoo nga loolu fajal sa bopp dañ koy tere ci bërëb bi yàq xam nga ki nga yàqal tamit te teyoo koog yëpp kooku mën naa mer ci lañ ko yàqal ba tax mu dóor la wala mu wala xeex am moo tax tooñ yàq. fajal sa bopp tooñ yàq fajal sa bopp loolu lu ñu dugal ci bopp xale bi la la jiitu ñu naan ko alifun baawun jiimun daal loolu daal moo tax ma ne la ndax ñoom ñoom ñaar yemul ci mas nañoo jote waaye xeex moo fi mosut am xam nga loolu boo ko dee wax sax danga naan maanaam kuy dégg kuy dégg noonu ci kaw rek wala àndu àndoog ndimbalal yàlla boo ko déggee te ngay sukkandiku ci logique rek ndax am na ñoo xam ne dëgg li koy booleeg ñoom rek mooy dañ ko yemale ci logique waaye nag am na ñoo xam ñu ko weesul foofu. waaye ak lu mën a xem rek yàlla moo xam ak ki nga xam moo dund mbir mi la muy dund waaye ñun liñ ci xam mooy bërëb bi moom waxuma moom mas na fee kenn waaye xeex mosut am ci bërëb bi waaw dong ak dong ci bërëb bii parce que mooy li ma wax sànq moo tax bi ma bañee lu ñu fi sax damaa tere ñi jikko fi dégg nga bi ma bañee luñ fi sax lu fi sax damaa tere ñi jikko fi te lay ji ab xeex xeex bu nekkee jiw wi sax moom mooy nga seetaan. yoo xam mooy indi xeex te moom mooy tooñante yooyu ak fayu yooyu wax ju ñaaw ak yàqal léeg yooyu boo ko régluwul maanaam boo moytuwul maanaam da ngaa loo xam ne mooy jur xeex loola nag ñu saafara moo tax suñu boroom ci suñu ginnaaw ndimbalam ba mu weesoo sabab yooyu moo tax ma eh, génn kàddu goo xamante ni ku ko dundul maa mosoo ko def sax danaa la jaaxal mooy bërëb buñ ubbi booba léegi te mosoo gis ñaari xarit jàppante di xeex waaw loolu moom fi.